am ma déwén buggal li ko dala tey ba illa yawmal qiyaam ma jéggal leen ngeen ànd ak seen nawlu yii dem àjjana wa illa jël ma bàyyi leen ngeen mel ni iblis continue ci li ngeen nekkoon bu bés penc am ma lakkale ñu ne ko ñun daal rus nañu bés penc ñëppay dem àjjana ñuy torox li la neex defal boo yóbboo commencé ñu ngi leen yóbbu fu ñuy wax baabil ñu leen dugal ci pax moo xam ne moo gën a ñuul oxset bu ànd ak xiin nga mar mar moo xam ne doom aadama maru ko mucc nañu seen làmmiñ ba mu toll soixante-dix mètres ñu juutal seen bopp yi seen tànk yi jëm kaw taal bu taal ci nit taal ci àddina saxaar sa ci pax moomu la jëm seen kati làmmiñ yi nag ñu leen di joowaan muy xoo muy riisu ndox mi te naanuñu foofu la ñuy jàng jibar nag ñu dañuy sànni tuuti di ko dicté ñu di ko booleeg la ñu xamoon ci la jabar yi mélange fen benn benn dëgg bu ne fukki fen di ko doxal moom la yàlla wax nag fii nu toll bismillah dañu sànni la ma defoon ca tawret sànni guddi bu jegeñ sax waraa wuurihim liibaruñu wa tabaxu ma taflu shayaatinu ala ahdi mulki Suleymaan Suleymaan ci boppam nag musula jaar ci caaxaan wa ma kafara musula def njifi njibar Suleymaanu Suleymaan walakinna shayaatina li fi nekk daal saytaaneem yooya kafaru yuallimuuna ngeen def de yuallimuuna yuallimuuna al alama rubaayu la su fekkee amul fàdd ci laam ji day firi xam bu amee fàdd na day firi xamle xamle waaw kay xamle lay firi xalama in allama allahu aadama ñooy xamal naa fa nit ñen yiran jibar ñu ngi leen koy xamale maa unsi la ca la ñu wàcce woon alamay la kay ni ca ñaari malaaka ya ci baabili mu ngi ca iraq haaruuta la kenn ko tudd wa maaruuta badal la ci malaka yi yàllaa leen wàcce nag ci àddina ngir nattal ko nit ñi waaye ndeysaan gore nañu wa maa yuallimaani du ñu jéem a jàngal min ahadin ci kenn njibar ata yaqula bel batuñu laa diire la wax la ñoom ñaar ne innama nahu lii nu nekk fitnatun natub addina la rikk bu ci dugg ndax ku ci dugg kéefër fala takk furu bul weddi di dugg ci liibar su ko defee nga bañ boo bañee nag feetaan la moo ne dañu sàkkoo xamloo ñoom nit ña min huma ci ñaari meetar yooyu maa xam-xam boo xam ne yu farriqoona mën naa réerale bii ci jëfandikoom baynal maat i kenn ku ne wasoo jëkk mu taxool kenn ku nekk ak xarit kenn ku nekk ak sa patron kenn ku nekk ak sa àndandoo gaa yooyu am na mën nga fa xame loo xam ne boo ko bàccee ñu réeroo ba faw noonu mu taatoon ba gi ñëwee nag nga wax ne ñu ne ku nekk jabaram waaye zëw ji mooy firi deuxième mooy firi deuxième su amee taatombe daal di doon ku jigéen su amul taatombe doon ku góor ku lu deuxième rek ndax gis nga dafa am lu ñuy wax paire ak impair mooy mooy mooy mooy toujours mooy toujours mooy toujours mooy toujours paire du pap paire dinañ ko liggéey fekk ñaar ñu bëggante ñuy benn benn li ñuy wax ne borom xam-xam bu bopp ba ubbee bu bopp ba am na benn waay bu nekk Paris sama doomu ni jaay li dafa bari xam-xame tubaab lool waaye ndeysaan yóor gi parce que ndox ñaar lay doon ci xel ak ci yóor am na yoo xam ne soo ko bindoon tey ci diggante ñu teg xaritam bu góor mbaa bu jigéen bu ko lew mbaa bu ko lew jabar mbaa jigéenam wala nit ak potonaam jant tey bi seen diggante yàqu tey tey loolu mu ngi amee nag bi ismillahi you know xam-xam yi caaxaan lañu mais dinañu dox ubaydillahi xam gis nga wëli yu ak seytaane yi li tax seen xam seen may uute wëli yu mayam amul limite day dem ba laaxira day dem ba asamaan yi juróom-ñaar mais bu may seytaane ànd naag may wëli yu ba bëtt asamaan yi ba bëtt deuxième mais troisième asamaan la yu moom la jàll ànd naag moom ba ci sukkuraat ànd naag moom ba kuy door a dog mais ku ñu suul mënu fa àgg day amit tànn ah yoo xam ne jinne yi dañuy ñëpp jinne yi yenn yi ñëpp gàntu di soogu sëyru ba doomam bi ñëwee jàngit ñi fa bi ñëw ne ko bàyyi du ma sa morom de mun a ko lan la mun a ko am naa xam-xam boo xam ne wëñ gu ñuul mën naa koo ruyal ba liggéey ci nii wëñ mu ne ko ah mun a mun a ko baax na gi def ko doom xale bi indi benn benn benn manche benn seffron seffron seffron di def nii rek di def nii rek seffron bi di yëngatu ba mujj gi mu téye ko na ko na ca ni wëñu fàlli mun ko doom day mën nga ko ñun am nga xam-xam bi waaye baax na wóor gi toog boo xam ne heure ba booba seytaane quitté na ko mun a ko doom ñëwal defaat ko ma gis yow mocc mocc mocc mu të mocc mocc mocc mu të góor ga dal di jóg moom samp sa baaraamam def ko wëñu faalay mu ne ko ki nga àndal jamono lay ànd ak yow te àndam fii la mën a yem ñun ki nu àndal ba bar sàq la waaw ñoonu la nekk la dem xam nga Aruna aussi ndeysaan bi ma doon nekk di buur bu bari doole la woon waaye moo joon ibn Adham mu xëy rek soppeeku moom nekk wëliyu suuf yank suuf yank suuf yank di sol yu bon am benn bés papaam toog ak buur yi invité leen xale bi romb fa sol yëre yu salte ñu sëgg waaye di tëgg rus lool okk ko mu wér mu ne ko doon toroxal nga ma sama naw la yi topp nga di jaar sa yëf yu bon yi la sa yëre gu bon yi xale bi ree teen nii seen picc muy dem mu ne ko ndéem am na ci jaam yi ñoo xam ne lu mu la sant nga wuyu leen kaay picc mi waaxu ñëw mu ne ko dalal ci mbagg góor gi sama bàyyi picc mi naaw dal mu ne ko dalal ci mbagg ndeyjoor bi mu dal mu ne ko dalal ci bi càmmoñ bi mu dal mu ne ko génneel picc mi génn mu ne ko bàyyi oo ko ndax dina ñëw bàyyi bi sëgg mu ne ko yow yaa ma toroxal yaa ma toroxal ci adratul ilahiyya dem ci àdduna yaa ma toroxal yaa ma toroxal ci góor yàlla yi yow loolu ma jur te mënu laa sant picc li lu ko neex waaw waaw mu ngeen teg wa maa hum deet ñaar ñooñu la ci seen jabar gooru bi daarina bi daarina wala bi daarayni nu ngeen def ak yaag yi yaag yi da ngeen ko da ngeen ko da ngeen ko ja da ngeen ko maas nekk wala da ngeen ko bàyyi mu xëccal leen seen raaj daf ko xëcce de waaw kañ raaj dafa sens du dara ri dañ ko li di xaamal dara la woon xam nga fii lu fii lu daal gi maal mi la woon maal mi dara la woon ñu sàdd genn gi ci moom bi moom ma dada waaye nag gaa yooyu mënuñoo lore bii ci seen xam-xam booba ahadin kenn min min ndollante rek la illaa bi ismaila dawe mu dajeeg nama namab yàlla kon nag elaw yaa ngoog waaye taal la ma ne ñu ngay xam lu mayu duruhum loo xam ne day leen jur lor ci àllaaxira wala yan fahum te du leen jëriñ fii ci àddina billahi wa laqad alimu yahut yooyu xam nañu ni li man istaraahu képp ku taamu xam-xam boobu maa lahu déet di ñeelati borom min xilaaxin ci cër fi laaxira di ci àjjana kon wala bii sa bon na maa sa wala ñu jaay anfusum bi law kaanu yaalamoon waaw kay téere yi ne nañu jumla ji jaaxal nag ku jàng naxu yàlla daf ne wa laqad alimu giñ naa ne wóor na leen fii mu ne te law kaanu yaalamoon bu ñu xamoon bu ñu xamoon ak wóor na leen uute na law kaanu ya'lamuuna haqiqatan maa yusirruuna la ilayhi min asaab maa ta'lamuun su ñu xamoon dëgg dëgg métti ci mbugal xam nañ ne dinañ leen bugal ku ko xam waaye bu ñu xamoon dëgg dëgg métti ci mbugal kon duñ ci dugg walaw annahum doonte gaa yooyu yahuud yi aamanoo gëm nañu nabi ak alquran wattaqoo ñu moytandiku duma yi yàlla ak njibar ak moyam buñ ko defoon ba dee ànd ko loolu mais uubi boo kon dinañ leen fay ñu asaf nag jawaa bi law laaj ànd ko loolu waaw waaw kay kon buñ defoon noonu la uubi boo ñu fay leen dañu asaf jawaabi law law jooju law amanoo la uvi boo bu ñu law annahum amanoo la uvi boo bu ñu gëmoon ma fay leen ñu asaf ko nag fab la masoobatin jooju le fab da ko palaasam palaasam bi ngir mandargaam la masoobatun maa ngi leen di xamal ne mubtada la ak pay min indillahi gu jóge ci yàlla xayrul moo gën li ñu jënd seen bopp law kaanoo doonte nekkoon nañu yàlla moo ne di xam ne moo gën kon duñ ko taamu raayna baat la bu arab bu yëwat di làkk mais làkk bu bon la ci ñoom raayna baat la bu arab di làkk mais làkk wu tegginu la ci ñoom léeg-léeg nga gis baat bu làkk di làkk te du ay ca làkk wa te boy ci bon te du te bon ci yeneen làkk day bari am na suñu mbokki séréer yi ñuy nuyoo waltaat ñoom nuyoo la ci ñoom aayul ci olof nag baaxul baaxul ci olof am nga noonu la baat bii demee ñoom bu ñu waraan ne bi saaba yi bu ñu waraan ne bi nabi di wax ratatatatat alquran ratatat dañ ko naan yaa rasulallah raaina raaina mooy mooy mooy relantil relantil relantil ndax ñu takk li nga wax defal ndànk defal ndànk loolu la firi ci ñoom ci yowat nag saaga la ñoom nag buñ ñu toog ci saaba yi di wax bu na bu saaba yi ne nabi raaina def nu ndànk ñoom ñu boo xel ci seen raaina bi di saaga buñ ko waxee rek ne bi daal di yëngal boppam ñu rëy ne kii moo kon ñu ngi koy saaga rek muy muy këfi muy kii muy tof ay suñ doon nag daal di interdit mot bi ne bu ko kenn employé bu leen waxati raina jël leen beneen baat buy firi may nu tuuti may nu tuuti te du doon raina ngeen employé ko pour saay-saay yi man cee bañ a tee potoxlu di wax càncañ la taxoloo bu leen waxati ginnaaw tey raaina yaa rasulallah jublu ci relentil jublu ci muñal nu jublu ci ndànku leen bu leen ko waxati ndax saay saay saan koy def xam ngeen waxooloo dee leen wax nag bu ngeen bëggee wax attention muñal nu ne leen undur naa xaar nu xaar nu mooy raaina ñu bëgg piri raaina ci arab mooy undur naa raaina ci naar mooy sa ci yóot mooy saaga léegi bu leen waxate raaina ñu di ci profité jëleen wax undur na rikk waay wasma'u dégg leen li ma leen digal dégg nangu ba dootuñu am kuy jaar wala kéefari na ñel ne saay saay si di doon wax baatu saaga ñoom xaasa bu mbugal ak li mun ni di mu ñu mu dikkal léegi wax jeex na maa yi waddu na leen wóor bu leen dof mukk bëggul mukk mukk te du bëgg mukk le Sénégal yi nga xam ne kafaroo yéefar nañu du ñoom rakk sax moo xam min ahlil kitaab yi yëwat lañu moo xam musrikiina yéefari màkk lañu lu kenn ci ñoom koo xam ne bëgg na am yu na salaama wàcce aleykum ci yéen jullit ñi min xëyrin ci wahyu kenn ci ñoom yéenewu leen woon wahyu gii xëyrin jooju wahyu lay firi alquran bëgg ñoo ma wàcce ko ci yéen dañ leen ko añaane wax yu koo xam ne ni rabbikum bëgguñu ko woon waaye man la neex wallaahu borom bi wàcce tey wàcce lu ko neex yaxtaf dina jaxe bi rahmati ci nubuutam gi man yi saaw ku ko soob wallaahu yàlla sul fa duli borom ngëneel la azim yi di ñu mag ñu dem naasiq ak mansuux mooy def leen nii bu ëllëgee ñu ne bu leen defati noonu def leen nii wax leen lii bu ëllëgee alxuraan ñëw ne bu leen waxati loolu wax leen lii loolu nag yow di di ci di ci di ci reproche na bi di ko ci ayibal naan daal yonent boo xam ne bu ne nii la tey boo liggéey mu ne naa boo liggéey mu ne naa kii sax kenn mu ci marché yàlla nag ne maa ngi leen di yëgal ne lu ma rakk fii te ma ñaan lu ko neex def ko ci wama lakum dé di ñuy leen bët bu mu leen di duma min wali yiin ci aji méngoo min doonillaahi keneen ku dul yàlla wala nasirin du ci ajjeen ku mën a tere mu duma leen gis naa ne am na lu ñu nar dañ ko ñeme ñu la wax yuridoona xam jooju place balla yuridoona dañu bëgg an tas aloo ñu laaj la laajub diingat ñu laaj laajub diingat kuñ ko bëgg a laaj rasulukum da ngeen bëgg a turidoona bokk am turidoona bal turidoona seet naa ne yéen daal seen nar nar mooy an tas aloo ngeen laaj rasulukum seen yonent bii laajub diingat kama su ila ni ko laaje woon niti Muusa ya laaje diingat Muusa Muusa min qablu jëkk dikkuk ala ah nabi da ngi fi mel ni daal la gaa yoo xoon Muusa ngir naaw mu mel dañ ko ne lu gaa yi laaje Muusa mu ne dañ ko noonu aaree naa woon ñu laaw yàlla laa yàlla jaara seen ci jàkkaar la loolu ngeen nar yi waaye daal ko aussi def xam wa man yatabaddala wa man yatabaddilil kufra képp ku fekk kéefër nga weccee kooku bi liimaani ci ngëm kooku fa xat dal la sànku na sabaa sabil yoonu njub mu dem wadda na ne feew feew mooy loo bëgg mu am na na feew mu war yàlla ku ne feew mu ne du kenn ñu ne ñan la mu ne min ahlil kitaabi kasirun min ahlil kitaab lu bari ci yowut lu bari ci nasaraan yi ñu ngi ne seew lan law yurudduunakum donte mënoon nañ leen a propagande ba reculer leen arrière min baadi imaanikum ginnaaw bi ngeen avancé ci ngëm ñu delloo leen ginnaaw ku faaram ngeen di yéefar lu tax ñu ngi ji ko xasadan ngir kañaan ñu indi am ci seen gutu ci seen bopp kenn ku ne ngi doon seew bu ëllëgee jullit yépp weddi yàlla naanandoo sàngara taala taxul ñu bëgg ko na ndax yëg ni am nañu njom bug ñëwaat te gars yi jékkoon na leen ñun tey dinaa tabayana loolu leen dal nag ginnaaw bi mu leen leeralee loolu ñeen leen ca tawret alxaqu dëggug Moustapha waaye foofu bàyyi leen leen wasfuhu te ngeen du mooyu leen ngeen dox rek atayat yi ba di ko laaw yàlla daa mbi ci ndigal i xeex ina laa naka borom bi xadirul mën naa laa kuli seen ci lépp lépp continuer leen ci li ngeen nekk doxale leen ko nii wa aqimu salaata bu ori jibee wa ato sakata bu wërsëg wi yaayee wa ma tuqaddimu lu ngeen teppati nag min xayrin ci jëf ju rafet bi anfusikum dencal ko seen yoolu bopp te judduuhu di ngeen ko fekk indalaay fas yàlla mu ëpp na mu dayoon ina laa naka borom bi basirul xam na damaa tàmbaloon a péew lu ngeen di liggéey képp kenn ci yéen fen nañu seen wuréy ñu nga wéet ci pénce naan ku dul yahud du dem àjjana ñii naan ku dul nasaraan du dem àjjana waxaaloo ñu nga naan lan yudxula lan yudxula du tàbbi mukk aljanata ajana xanaa illaa man kaana hoodan ndaree ku dugg ci diine yahud am na ñu naan lan yudxulu aljannata illaa man kaana nabaara aw nabaara wala mu dugg ci diine catholique ah tilka wax boobu ñu ñele wax tilka fen wu rëy woowu amaani yuhum seen mébét la rek du benn dëgg xool wax leen ne leen ndéem ku dul yow du dem ajana ku dul nazaraan du dem ajana xaatoo indi leen burhaanakum seen preuve yu leer nañ in kuntum ngeen nekk ngeen saadiqiina di wax dëgg ne yow fekkee dem ajana ak nasaraan rek balee aha kañ ajana ku dul yow dina ci dugg de balee aha kañ ajana ku dul nasaraan dina ci dugg de ngir man aslama képp ku jébbal na wëccuwoo jëmmum lillaayu ommatu jëm ci santaane bi yàlla woowate moom moo sinin mu rafetal aw tawxiidam kooku fa loo ñel na ko ajuroo yolom indara bi fas boromam te mooy ajjana wala xawfun di tiit alim ci ñoom ci sukuraat wala mbir ñoom yox sunu du ñuy toroxal bés pëj xawfun toujours àddina la xëstun toujours àllaaxira وقال توخني يحودو من ليست النصارى بالدين لسران على شيئين بتبوش الدرة وقالت الفيو نصارى وخني ليست يحود بالدين يحودي على شيئين تبوش الدرة yàlla ne ndax moom ñaari kaa yooyu ku ci ne yëpp lu na jàngale kitaaba téere ba ñu wàcc ci moom kasalik ni gaa yooyu wax ku ne naan sama wax doo dara xaaral la waxee defe na ñi nga xam ne laa yemoonu musrikuuna di it du ñu nasaara du ñu yóot waaye musrikul arab it ñu ngi naan ku dul arab nekkul ci dara mis la qawliim wax bu niroog wax boobu kon nag nasaraan yi ne nañu yowut yi duñu dara yowut yi ne nasaraan yi du dara musrikin yi ne yowut yi dara yowut yi ne musrikin yi du dara kon doxal la rek fallaaw yàlla mi xam ki ne ci dara yàqun dina atte bay noonu seen diggante yowmal xiyaamati bés penc fi maa kaana ci lu ñu nekkoon yuxtalifuna di uute ko fii ci mbiri diina wa man aslama amul kenn ku gën a mën a tooñ mais man ca ka nga xam ne man mu ngay tere masaajid allaahi néeg ya ñu tudde yàlla muy jàkk mu ne an yu zakkara deeful tudd fiaa ca jàkk ji ismu turu yàlla yemu ci kat waa yahuud yi la ba ñu tojee baytul maqdis rappal ko aaya nit ñi ne néeg bu ñu tabaxal yàlla ki ne du ci tudd yàlla di tere ko ci tudd kenn dunu koo tere tooñ yemu ci nag wasaa muy propagande fi xaraab yaa ci lu màbb ni ba lu ko toj wallaay ka gaay yooyu da ngeen nasax rek de waaye waruñu woon a yaatu bay aaye jàkk ji ndax jàkk la joo xam ne maakaana jaaduwul woon loxu moo dalu xel ñeel leen an yadxulahaa ñu mën koo tabbi ilaa xaa'ifiina ndara dañu la ànduk tiit kon dafa mel ni yàlla dafa yedd jullit yi mu ne gaa yooyu naan dañuy tëj jàkk ji su ngeen defante woon ak ñoom lu war duñ fu ñëmi ñu dugg si nit nag fu mu ñëmi ñu lu dugg bu amee audace ba naan nañ ko toj ñu ko yolo ñu ko yol ñu ko yolo sàggan na gaa yooyu dem daa duwul woon sax ñu ñëmin fee dugg waxumaa di ko xoj toj loolu ñeel leen xëccun toroxta fi dunya wala ñeel leen fi laaxati asab naazim walillaahi ñeel na yàlla dong masriqu la dale ba jant bay fenk wal maxribu ba fa muy soy walillaahi ñeel na yàlla it masriqu moomeeluk soluk fenkuk jant bi wal maxrib ak soowam fa inama tawallu fu ngeen fi jubale jaamu fa samma di ngeen fekk foofu wàccullaahi payug yàlla bu nangoo inna laa borom bi waasoon aji yaa ji ngeneen la alimun aji xam ñi ko yeeyo lay wa xaaloo ñu nga naan ittaxisa am na laaw yàlla wala dan doom bu jigéen sax malaayikatu taa tombe googu lañ def taayu taanis ñuy jigéen lañu yàlla leen jur subhanahu tudda na ma sell ak yàlla ci di am doom loolu ñeel na commencé samaawaati wal ard moo leen moom ci bind moo leen moom ci njaam moo leen moom ci moomeel kullu képp kenn ci ñoom waa asamaan ak suuf xaanitoona way wéetalu jaamu la ñu loolu ñeel yàlla badiwu samaawaati moo fabriqué asamaan yi te copié wu ko fenn waa ardi moo fabriqué suuf te copié wu ko fenn kooku bëggul doom isaa xaddaa bu amoon soxla ci dara am ren mbir mu mu mën a doon bu ko bëggee amal fa inna mi yëqulu da yomb yomb waxu kenn ci yéen loolu ñeel la mu bëgg mu am kun nekkal di ñaari arab fa yokkona mu nekk di la mu bëgg yàlla kat du wax dara kun bi iradati ci nama namam li yëf yi amee dafa doxe rek dafa joxe exemple ne yëf yaa ngi yomb ci man ni kun yomb ci yéen kun nag li tax mu indi ko moo gën a gàtt ci baat yi lu koy yées rek dootul doon baat araf lay doon baat mu ngi dale ci ñetti araf ba ñeent ba juróom ba juróom benn ba juróom ñaar ba juróom ñett defe naa araf yi daal baat daal mu ngi mën a yem ci fukki araf lu ko may rek la ci topp beneen baat lay doon waaye sakkanaayu baat du ëpp fukki araf kon nag ñu bu wàññeekoo juróom-ñeent wàññeeku juróom-ñett wàññeeku juróom-ñaar wàññeeku juróom-benn wàññeeku juróom wàññeeku ñeent wàññeeku ñett wàññeeku ñaar fi la mën a yem lu ci tegu dootul doon baat alaf lay doon kun mu jeex taala wax na la fi ne dof ya nga xam ne laa yaalamoona amuñu xam-xam omat ne du yàlla la yun mu ne waaw ñu ne ko lawla yukallimuuna allahu lu tere woon yàlla wax nu ne moo la yónni aw taatina wala bu ko waxul yow nga indi ayatun kéemaan bu tax ñu xam ne moo la yónni yàlla ne kasaalika ni waxin bii gaa yi wax waxin wu mel nii xaala la waxoon la seen maam yi nga xam ne ñun xam lii jiitu woon ni ñu mis la xaw lii wax bu ñu roog seen bos bii tasabaxaat xut nuróona xuluubuhum xolu yéefar yëpp ak seen pas-pas ah kay kéemaan kañ wane naa ko xab yi naa leeral nañu laayaate ay kéemaan waaye du ñëpp de xaw min yuuxi noonu ku ñaan ñun yàlla noonu yónni arsalnaaka bil xaq basiran ngir nga bégal ñu nangu waa nadiran nga xuppa ñu bañ li ma lay dénk nag mooy wala tusalu an asaabi jahim bul laaj waa safara lu leen tëree gëm maa ngi lay dénku nag yaa ngi ci biir groupe bu dangereux walan tarda du d'accord an ka ak yow yahudu yahudi wala nasara du caageen nasaraan yi du ñu nangoo d'accord ak yow ata tatabia bel dafa nga nangu siiwar millatahum seen diina otul nag otul loo man bu ko def de xool buñ ne la kaa ci diina ji nee leen inna hudallahi lislaami yàlla bi huwa moom al huda muy njub leneen lu dul moom du njub bu ko def de bu leen siiwar de bul topp lu la neex de ah billahi wani tabaata boo ñàkkee bopp ba topp awaahum la leen neex nga def ko ba dëll si ginnaaw la nga xam ne jaaka dikk ne mi elmi ci wóoyu ne la wóor ni kitee na ak yow maa làkk de di ñaareel ci la yow nubi ñu ne lay ci dunu yàlla min waliyin aji mën a wattu wala nasirin di càggin aji mën a àtt nabi la yàlla wax loolu kat nabi ci boppam kon sëriñ si soppi ay alxuraan yi ngir jëmmi nit war nañoo déglu lii yowut yi ñu bari ngeer la ñu woon nasaraan yi ñu bari arma la ñu woon waaye yàlla ne ne nabi luñ la ger ger ak luñ la xupp xupp bul sante li ma wax firee ko leneen soo ko defee kat du ma la nëbbu kite naa yow ci saasi ci saasi kite bi nag du jur jàmm dinaa la duma te doo am ku la làq dinaa la dóor te kenn du la fa ñaat dara ngoog de ponkal mi la ñuy wax loolu kat la fi na gaa yi nga xam ne atay naam murtada la joxeef na leen kitaabe téere bi te ñu gëm yàlla ñoom day yatluunahu danañ ko nettali xaqa tilaawatihi dëggi dëggi nettali walaayka ñooñu yoomunoon a gëm nañu bi ci téere bi xab sa wa man yakfur képp ku be dina bi ci tawreet wala alquran fa ulaayka hum alxaasiruun yaa bani israila yéen doomi yanqooba yeeg sëtam yi uskuroo fàttaliku leen niamatee sama xiiwal lati ga nga xam ne ana amtu baaxe naa ko aleykum ci yéen waa ni ya ngeen fàttaliku ne man faddaltakum yëkkati naa leen ba ngeen gën alal aalamiina ci ngeen naasel ay waajile wataxu ragal leen yow man tarub bés boo xam ne laa tëj si du jëriñ keroog nafsun jëmm ju di yéefar an nafsun ca beneen yéefar say an dara bés la boo xam ne laa yuqabalu deful nangul min a ci taru bés si adalul njot wala tanfaxuha du jëriñante ci bés boobu safaan rammuk aji ramm wala hum déet ñoom it ñun suroon di mën a tere yàlla mu duma ñenn ñi madam téere bi ne na ñetti affaire yi muccal nit yëpp la lim ne amul àlaxira kii mu ci ne musul nit ci àddina am lii tabax ñu ne musul nit ci àddina su yëpp téye ñu ànd su toola nangu ko dem ak moom mais nag bu àlaxira lu nangu jot mukk bu déglu tiim na ci it te bu ñëpp àndoo nit moo li lëpp doole kenn mënu koo sot jël ki muy dunu mu ne boobu bés mat naa ragal mais yi jeex na waaw ah kay fàttaliku waskur fàttaliku lan isab talaa baa nga xamee ni natt na nattub santaane ku ko def ku ñu ko def ibrahima taqdimu maf'uulin min faa'ili damiri rabbahu jee tax alsaxir jee tax ibrahima jiitu rabbu rabbooy faa'il ibrahima ay maf'uul waaye damir du mën a avancé day dellu ginnaaw kon nag way sab talee fàttalikul ba nga xamee ni natt na ci santaane ku natt ci santaane ku ñu natt ci santaane ibrahima ibrahima ku ko natt woon ci santaane rabbu boromam sant ko ay service bàyyi ko làkk ko maa ko sant bi kalimaatin ci service maa ko teg ay togg togg yooya de ba dat ba jotee ma setti ko fekk naa fa atamuhunna mu matal leen gën jaarafati matal ibrahima amu taggawaay bu ibrahima la ci waxaango maa ko joxoon ay yëf dat ba jot ma setti ko fekk mu liggéey kon na mu gën a rafet nee nañu kat yëf yooyu yàlla naw ba di ci gërëm ibrahima mu doon farataam sunna la ci ñun xam nga service yi yan la woon kalimaat yooyu service yi xam nga lan la woon aji mag balaxliku soroxliku socc wat mustaas sotti ndox ci bopp lelli xus kawarik pokataan wat naq ak xaaraf ak di yóbbu ndox ci wanag wi pour laabu soo nga doon service yi bàyyi yooyu yëpp ci ñun matul farata sax sunna la rek te yàlla naan wa Ibrahima lazi wafa fàttaliku loolu góor googu nga xam ne la ma ko santoon yëpp liggéey na ko fii ma nii subtalaa Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna c'est li mu ko jural dafa ne tey ma noome la nga nekk iliman nga nekk président nga nekk capitaine nga nekk général fa atammahunna mu matal ko na ma ko ko sante woon xaale yàlla gërëm ko ne ko imiye man yaa iluka dinaa la noome imaaman ngay royuwaay li naa si nii nit ñi Ibrahima nag bu ko yokkoo ci yàlla ne ko bu ko yemale ci man si ko waay yàlla nome waalil min suriyati yi sama doom yi sama sët yàlla ne ko ah ah du noonu kat laa yanaalu du mun a am aydiya sama garaat ak zaalimiina ku siriwut ku siiwarul peloton ba ba sonn nañ dem ca rang ba liggéey ni yow ñu liggéeyul dama leen ci boole moo tax l'islam dañ ko doon lante liggéey rek buñ ko doon doonante doomi nooyin du dem safara tey bàyyim di yónent buñ ko doon doonante doomi jabari lootu du dem safara te bàyyim di yónent dégg nga li yàlla wax Ibrahima inni jaa'iluka linnaasi imaama mu bëgg ko mu bëgg ko mu bëgg a totoxlu ne ko wa min suriyati moo yor ma ci doom yi mu ne ko ah ah laa yanaalu ahdi zaalimiin fàttalikul is jàll naa bayta masaabatan linnaasi fàttalikul ba nga xamee ni maa def bayta kaaba ga masaabatan muy barab bu mën a jur kay ak yoon linnaasi neen nit ñi ñu réewul ak néeg bu ñu tabax muy poste mbaa bu ñu tabax muy marché parce que poste bu ku ko wër am yool bii dama ko def ngir utakaayu yool waa am nan def naa ko muy raw waaye ku ci dugg kenn du la laal maa digal nit ñi ne wa taxisu saxal leen musallan jullee waaye min maqaami Ibrahima ca jeexiti taxawaayu Ibrahima ba bu koy tabax su muy wëlte nii bi juróom-ñaar julli fi ñaar raak te inna jox naa ndigal illa Ibrahima da rek wa Ismaila ñoom ñaar maa leen ne an taxara bale leen day téye néeg bi ba kenn du fa katalu bale leen day téye néeg bi ba xëram yëpp génn na ngeen wàcc xëram yëpp faxas ko ñu taa'ifiina ñeen ñiy wër ba kenn du fa katalu wal aakifiina ak ñi nga xam ne dañ fi toog di sàbbaal ba kenn du toog ci xeer wa ruku'i ak ñiy naafila ak sujood yi ñooy wër julli farata xaakifiina mooy ñu fa nekk rukkoo yi sujjóot ñu julli taay fi na ñuy wër na ngeen ko setal lu ñu fakkatalu ngeen setal ko ci xërëm ba du ñu kabaraale xërëm loolu maa ko santoon parce que fàttali ko xaala baa xam baa nga xam ne wax na ibrahima ibrahima moo ne rabbi borom bi ijxal yàlla nga def xaawaa taran fii yàlla na nga ko soppi baladan mu di dëkk booba màkka àll la aminan mu di boromu góolu saa amin waxat ajaba laahu duaahu yàlla nangu na ñaan nga fa jaaloo araman laa yusuku fi damm insaan wala yasmu fi ahad wala yusaadu zayyidahu wala yaxtala xalaa'uhu warsuq loolu moo faraan warsuq ibrahima nga continuer ñaan ijal haada baladan amina defal place bii ma teg sama jabar ji mu def àll baladan muy capital xaaminan guddi bëruma kóolu war suq yàlla nga war sagal ahlawo ñi ko dëkk ñeena samaraati xiis te mel ñen te yëpp donte la duñ fi du bayit donte duñu bayit yàlla nga leen war sagal mel ñen te yëpp waaye nga yemale ko ci man amana ku gëm ñun ñu ci ñoom billaay ci yàlla wal yëme bés ba aaxira bi daal jëne ji yàlla tontu ko juy ko no mu ko juyi woon bu jëkk yàlla day wone ne àllaaxira kenn du ko am te sonn la addi addina nag ñëpp laa ci yemale ku ma topp dinaa ko ko jox ku ma topp dinaa ko ko jox addina nii nga xam ne balaa ko kenn am yàlla digle yàlla digle ci ni ci coono ci coono ak ñàkk coono lañ koy amee dinaa wërsëgal ko ab yaafus dinaa xañ ku njax la àllaaxira nag la ne kenn mënu ko am te liggéeyu te nga léeg-léeg nga xaw a liggéey ba xaw a dee sax ma xañ la ko ça va noonu ah déglu leen ko bu baax addina la ni ku yóbbu kuroosu say baaraam aj ci man lii si wërsëg bi ñu ci jot ku yóbbu farlu lii si wërsëg bi ñu ci jot dinaa ko jox ku utub ku ko utul àllaaxira nag kenn du ko am te utulu ko kenn te it du ko ko ut sax am ko bari na ko ko ut te amula ko Ibrahima te palga la noonu yàlla wamin suriyati yàlla ko ah ah bokk ci moo tax mu tiit bi muy ñaan wërsëgu àddina mu ne ko yemale ko man amana ñi gëm yàlla na ko iboo ma ni wama ñëkk furit dinaa ko ci boole ak ku wet yi itam dinaa ko ci boole waaw waaw moo daan kafara yi dinaa ko ci boole kooku itam fa umatti uhu dinaa ko mosal xalilan fan yu néew muy lu muy dund summa taroo ma nërmeel jëmmam ji ila azabi neer yi fa biisal masiru waskul fàttali ko si isyar fam o baa nga xamee ne mu nga yëkkati ibrahimu ibrahimu alxawaira famba maa kaaba ga min al beyti wa ismailu ak doomam bu ñuy wax ismaila yaqulaani ñu ngay wax ba ñuy tabax naan rabbana taqabal mina innaka anta السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يدعو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت عزيز الحكيم waxul leen maam yaay maalik ñaanu maam ibrahima nga yëpp moom mu ne ñaan dëkk bi yàlla nga ko def muy dëkk yàlla nga laabal néeg bi yàlla nga def muy rawuwaay yàlla nga def muy ab yonent juddoo fi yonent bu gëm ci yonent yi ba ñu samp màkk loolu lañ fa ñaanoon moo tax ne bi daan na wax ne an naa daawatu ibrahima maay ñaanu maam ibrahima ga rabbana borom bi taqabal yàlla nga nangug liggéey innaka naka yow anta samiul alim rabbana yow borom bi waj'alna yàlla nga def nu muslimin ñu di ñaari way omatul ak ñel wa min durriyatina suñuy doom yàlla nga leen def ummatan ñu di mbooloo muslimatan ñu di jébbalu làkk ñeel la wa arina yàlla nga nu xamal manaasik naa sunuy sariya li ñu mën a jaamoo wa tub alayna yàlla nga nangu tub alayna ci innaka anta tawaabu rahim rabbana yow borom bi wa buuf yàlla nga yebal fihim ci waa dëkk bi rasulan ndaw min bu juddoo ci ñoom yabloo koo xam day nettali alayhim ci ñoom ayatika sa alquran wa ya'limuhum mu di leen xamal kitaaba farat wal hikmata ak sunna wa yuzakkihim mu di leen laabal innaka anta azizul hakim mu noonu génne Ibrahima ngoog ku ko bañ bañ lu baax wa man yarqabu du sib an millati Ibrahima ci diine Ibrahima jooju xanaa illa man safiha nafsuhu ku dul ab dof ku doy dal boppam rek ay kontor ji diina wa laqad astafayna maataan Ibrahima fi dunya ci àddina def ko ci risalata qul àddina takkal naa ko garanti yi xarit takkal ko garanti yéenun terewul nag wa innahu fi laaxir bi la min asaalihina ba laaxiraa ca daraja yu mag yi lay nekk fàttali ko isxaala baa waxee loo ñeen ibrahima ra boo borom aslim ommatul jébbalul xaala mu ne aslamtu jébbal naa sama jëmm ak sama liggéey ni rabbil alamina ñeel borom bi ndefi baat boobu wasaa dénku na ibrahima ibrahima banihi doomam ismaila isaaqa wa yanqooba it dénk na baat boobu doomam ibrahima ne na yaa banii inna allaha yàlla stafa tànnal na lakum yéen leen diina l'islam fala tamuutunna bu leen dee mukk wa antum te mbir moom yéen ndaree boog yéen muslimoon a yéen a ngi làmboog ngëm am kuntum wala dañu nekk ñoom yawut yooyu noon ibrahima diina yawut la nekk dañu nekk su adaa di fekk is adara ba nga xamee ne teew na mawta melaw dee ca yaquba is xaala ba muy wax moom yaquba li banihi maa ngi bëgg a dem laaxira dama leen di laaj lu ngeen nar sama gannaaw maa tax bu doonu ku ngeen di jaamu sama dee min baat yi xaalu ñu ne ko ah loolu kat bàyyi mutu la laaj ndax bu dinañu wéetal ilaahaka sa borom wa ilaaha abaika ak sa borom mi bàyyi ak sa bàyyi bàyyi ibrahima ay sa bàyyi bàyyi ismaila ak isaaqa ñooy say bàyyi dinañ ko def ilaan mu di buur waaye den bu di benn wanoonu nu muslimoon a woy omatu la ñu looy ñel yëpp yàlla yàlla ne tilka am dafa lii ibrahima ak yanqoba Ismaïl ak Isaaq ummatu mbooloo woon lañu mu baax xab xalaat wéy na seen jamono laa ñenn mbooloo ma maa kasabat lu ñu def ci lu baax walakum yéen a aye nag ñeen na leen yéen yahut yi maa kasabtum lu ngeen fàggu ci lu baax wala tusaluuna deful laaj bu ñëwee ama kaanu yéen duñ leen laaj lu gaa yi la doon def ñu gaa yi la duñ leen laaj yéen lu ngeen doon def ama kaanu yamul waxaaloo wax nañu ne koonoo jullit yi bu ngeen bëggee jub dëgg dëgg jub bëgg a texe nekk leen hóodan di yahut ñenn ñu ne koonoo nasaara su ngeen doon yahut taxtadoo kon di ngeen jub yoonu dëgg su ngeen dee nasaraan taxtadoo yàlla ne nabi buñ leen neeti nekk leen yahut wala nekk leen nasaraan xuul waxal lawum ñeen leen ne bal lu ñu nekk yahut lu ñu nekk nasaraan ñun daal ñu ngi topp rek millati Ibrahima diini Ibrahima da nga xam ne nii fan jox na ginnaaw jëpp diine ji jubul wa maa kaana musula nekk minal musrikiin xooloo maa ngi digal kuy jullit fu nit deeti weranteeg moom sa tontu na ne doon lii ñoo la gën diina ñoo la gën sëriñ ñoo la gën tariixa ñoo la gën tool neel nun day amana billahi gëm nañu yàlla wa maa unsila ilaynaa gëm nañu alquran maam sole ila ibrahima lañu laaj ci ibrahima gëm nañ ko bi ismaila gëm nañ ko bi ishaqa gëm nañ ko lasbaat loo mam yaag sët ye gëm nañ ko gëm nañu maa utiye moussa tawret wa inse mooy linjiil wa maa utiye nabiyuuna min rabbihim ñu lu jóge ci yonent jëm ci yàlla lu jóge ci yàlla jëm ci yonent gëm nañ ko ñoom ñëpp ñun laa nu farriqu du nu farafaan ci ci gëm bayna ahadin diggañ te kenn ñu dem ci ñoom wala ñu musulmaan way amatul la ñu loo ñeel yàlla su ngeen waxee loolu nasaraan yi ñu tontu lool fa in aminoon ndéem gëm nañu ñoom itam bi mislima amantum gëm gu mel ni gii ngeen gëm te mooy maa unsila ilayna wa maa unsila ilaykum ibrahima isaaqa yëpp kon day fa xadixtadoo soobu nañu yoonu njub wa in tawallaw bu ñu bañee ne du ñu gëmee noonu nag bàyyi leen leen fa innahum maahum nekkuñu lu ñu fi si xaasin ci puute seen diggante parce que yëpp si yëpp ñu kal seet na laa feggu laawu yàlla ci ñàkk dépense kër gi amul dépense saako ceeb bi jeex na weer wi deegul wala sumuur na maa ngi seet ba xam di nga saalit wala di nga def lu jaaduwul du ma yem foofu nag maa ngaa jàll tool léegi ñu béyle ba ñor def ci dé maa ngi jàll ca dencee léegi di wa naqasin dinaa leen nattoo ci di wàññi mi na lam waali ci aleel yi aleel yi nag am na ci yu am bakkan am na ci yu amul bakkan am na ci yu nekk jëw hër dinaa leen wàññi lu ci nekk léeg-léeg ma jaare ci bakkan yi dinaa jaare feebarloo doom feebarloo jabar rey doom rey jabar rey xarit loolu dinaa leen ko def ba xam nu ngeen di wax wa samaraati dinaa jaari ca tool ya fekk meññint moo xam ne jëriñoo rekk ci des ma yebal ay njéeréer ñu yàq ko koppar yëpp léeg-léeg ma jàppandal saay-saay mu tëj koppar foo jël sa yëf dem léeg-léeg it mu rob ku mu ci dal nag dinaa la déglu ba xam li ngay wax lii ma wax ku mu dal nga ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ñooñax na leen wóor ne dinaa leen jox lu gën la ñu réer la may leen àjjana wa basiri bégaleel saabirina gor yëm muñ ba ba ñu lambee seen kalpe mu rob ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna biñ ñëwee fudd sàkku bi bu jeex ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna biñ ne leen dàq nañ leen te ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna bi leen ku leen ëpp doole tëkkoo it ne bu subaa boo xëysee ñu tontu na inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ñooñu laa ne nga bégal leen bégalal ba saabirina way muñ ya ñu ne ñooy ñan mu ne lësiina mooy góor yi nga xam ne isa azabatun ndéem dal na leen musibatu natt ci natt yi xaaloo seen tante yëpp mooy inna nun ñëpp lillahi jaam lañu ñeel yàlla daf ñu yolomal rek wa inna nun ñëpp it dinañu rey jiital nu rajo oona way dellu la ñu ilii jëm ci kanamam ulaayka gaa yi rafet wax ji alayhim nal dem seen kaw salawaatun jéggal gu rëy min rabbim gu tukkeen sa borom wa rahmatun ak xéwal gu yaa ulaayka yooyu la gaa yi hum ñoom muhtaduuna ñoo di way jub ñi yàlla ci yàlla bool inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna baax na trop ci natt bu ñu xëbalee mbaa ñu tëkkale ne la ëllëg jàppal ci daal gisal waxoon naa la ko fi umu salamata jabaru nabi la la mujjee doon waaye abu salma ko di ko deñ di doomi nijaayam baax ci moom rafet bari xaalis dee mu ne ah alxuraan de ne na